weeru novembre école bi dafa taxaw li ko taxawal nag ñëpp xam nañ ko moom mooy ñaxtu yi nga xam ne yii syndicat d'enseignants yi ñu ngi koy def rax ci dolli ñu dem jamono yi tollu xale yi dal di ci dugal seeni grève ba tax na mbir mi moom commencé na garaaw te li koy firndeel moom mooy syndicat d'enseignants yi nga xam ne sax ñu ngi ci école yi nga xam ne yu tuut tànk yi dugg nañ ci loolu moom mooy wane ne buñ ci jógul mbir mi dina lawal lawal law ba daanaka dina paralyser système éducatif bi dégg nañu ne nag am na ay waxtaan yoo xam ne yii fi ñuy waxee nii ñu ngi koy def ci benn hôtel bu nekk ci Sénégal ci dakaar teew nañ fa waaye ñun dañu doyal ci di waxtaan biir néeg moom moo taxoon tey ñu jël suñuy responsabilité dal di génne ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy représenté association de d'élèves yi te di leeral ne comme niñ ko waxee ci tubaab barki démb ci ngoon juróom-benni waxtu lañ ñu dal di wax ne autorisation bi ñu bindoon pour ñu dal di ñuy permettre ñu dal di def suñu jotaay bi nangu luñu ko ndaxte dafa am beneen organisation bu fi doon waroon a def lu mel noonu ah ñu nangu ko parce que ñun ay légaliste lañu ci la ñu dal di jógee dal di invité organisation yi nga xam ne yëpp waroon nañu ñëw ci gox-goxaan yi ñu ne leen ñu dal di toog loolu nag moo indi tolof tolof fi ba li ngeen ba ngeen ko seetloo li fi nekk ci doomu aadama xawul jéggi dayo noonu waaye li am solo rek moom mooy wax nañ leen ñu toog teew bu ko defee presse bi dal di mën a relayer information bi li ñuy wax rek ci gàttal mom moy désormais ñun kuréelu wajuru ndongo yi li ñi jëkk laaj mom moy fépp fu ñuy waxtane té suñuy doom dañ ko wara téwé ndax té tubab lu leer la wax tout ce que se dit en ton absence se fera contre toi ñun nak nag ñu comprendre ñaari entité muy gouvernement ak syndicat di waxtaan te du am kenn ko xamne ki kii war na mën arbitrer teewee bu ko defee lépp lo xamne fi fii war na fa mën a ñu dal di kay wax donc désormais dootu ñu nangu ñom ñuy gisee seen bi te ñun duñu duñu ko teewee loolu lañu bëgg wax enseignant nak ñu ngi leen di wax comme ñom dañuy réclamer seen droit ñom it nañu def seen seen devoir parce que ñun xam nañu taxi loi 61 33 en son article 9 lu leer la wax képp koo xam ne kii da ngay liggéey ci fonction publique amoo droit di def beneen liggéey parallèle rawatina nag nga ko def ca école ba ngay jàngalee ñun nag dinañu teg suñu bët ci loolu te den ci dox képp koo xam ne kii aussi da ngay jàngale ci école publique du ñu nangooti nga dal di bàyyi suñuy doom yi nekk ci école publique yi dem di jàng ci école di jàngale ci école yi privée du ñu ko nangooti

nguur gi fay len te lolu amna man teewe na ko palais de la république ñu ko nang ku tok ba gréew jappal ne dañu wara dag waxtu ya ak fan ya nga wara a yépp te nu mu solo des sentinelles et à chaque fois que de besoin bu lolu amé dinañ ko dénoncer devant le gouvernement suñu wax na du ci sori li ñu bëgg moy ngeen ñëw ci suñu organisation parentale yi adhéré ci parce que ëllëg ak si biir vous osez nous serons jugés devant l'histoire sunuy sët yal na yéex bés bu ñu fi jógee dinañu dem ba ne ñun sunu waajur yi fi newoon lan la ñu def lan la ñu defaloon ba ñu dundee lii je crois que tout un sénégalais war na xalaat loolu ëllëg ak si biir réew mi bu yàlla dogalee tey ñu dal di wàññeeku yal na yéex ñu bàyyi ko ci loxo yoo xam ne yii. ña fa nekk war nañ ko mën a wéyal loolu daal dañ doon wax di leen gërëm particulièrement la presse ñu ngi leen di gërëm yéen xam ngeen ne ñun amuñu dara lu dul suñu volonté te chaque chaque fois que de besoin bu ñu wootee da di ñëw teew suñu wet loolu lañ doon wax di gërëm ñëpp di sant